إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi ñu ngi sandaat sunu borom subhanahu wa taala ci mbaaxam gu yaatu gi moom sunu borom li mu nu defalaatee tawfiq ba ñu dellu si waat ci ron keppaaru xam-xam waaye ci ron keppaaru alquranul karim comme ni ngeen ko xamee yoo xamee ko ni ñu ngi nekkoon ci saar bu màgg bi di suuratu nuur muy saar woowee nga xam ni moom la borom bi subhanahu wa taala tuddee saaru leer ma baamu woon ci lu dul benn yoon di wane ni saar bi ëmb na ci ay njàngale loo xam ni néew na saar booy dem ci alquran fekk mu ëmbee noonu ay njàngale yu amee solo nii dajale loo ko benn yoon ci benn saar beneen ci des mooy saar bi tur bi dafa wuyu ci boppam ndax mboolem li ci nekk dafay leeral xol aji gëm mboolem li ci nekk dafay leeral kër aji gëm mboolem li ci nekk dafay leeral société ñi gëm yàlla subhanahu wa taala sunu bind bi la weesu borom bi subhanahu wa taala mi ngi doon faram fàcceel leen ne ci ay njàngale te bokk na ci yooyu lu lu ki mel ni yeneen ci àtte yi nuyoo te ak lépp dina ci laalaat suñu bindab tey bi ak xeeti jëflante yoo xam ni moo war a dox ci diggante ñi majeur ñi nekk mu kallaf ak ñi nga xam ne mata ñoo nekk mu kallaf kon suñu bindab tey bi ginnaaw mën a taxawee ci laayab juróom-benn fukkeel tey ñu ngi tàmbalee ci laayab juróom-benn fukkeel ak benn xaw tuuti kon moom rek moo nekk suñu bindam tey ndax xataay waxtu borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax ci laaya ji di laaya juróom-benn fukkeel ak benn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمكم أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون kon jenn laay ji di laay juróom-benn fukkeel ak benn sunu borom subhanahu wa taala ci laay ji mi ngi tàbbiwaat ak ñun ci beneen njàngale ci njàngale yu bari te am solo yi ne ci suurtu Nuur wax naa la ni suuratul nuur saar la boo xam ne dafa am ak jagoo ndax mbir yi ci daje ci ay njàngale ak ni mu amee solo néew na nga dem ci saar fekk njàngale yu bare nii tegalantee nii amee solo nii dajale ci saar borom bi subhanahu wa taala ci laaye jii nga xam ne ci lañ war a tàmbalee alxaafis ibnu kathir rahmatullahi alayhi dafay nit li mu ni ah ci arab yi wala ci lislaam boobu ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donte laay ji sax balaa may wax li mën a ma wax mooy am na ci mufassiru lu ñu wax ni jihaad moo ko taxawaat yombal ku jëm ci jihaad maanaam laysa alal arab xaaj ki nga xam ni moom dafa silmax benn bàkkaar bu ko am ki nga xam ne dafa laaj gi moom it kadaalika ci ñàkk dem nga mi ñàkk dem jihaad am na nu fasiru ni ñoo xamante ni ñoom noonu lañ ko tekkee waaye li gën a dëgër mooy laaye bi gën naa ëmb loolu rawatina alxaafis ibnu kathir boo demee ci tafsiram day wax ni المراد ها هنا أنهم كانوا يتخرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات إلى آخر الكلام. سورة ليس على الأعمى دين ديوار الكون كتلمة ليس على الأعمى دين ديوار الكون تلمة حرج بين الأطراف wala al aarut ki nga xam ne dafa laaj ñu ngeen koy wax laxe dafa laaj moom it du am benn bàkkaar wala al marid ki nga xam ne dafa feebar tamit xaraj dama du am benn bàkkaar wala ala anfusikum déet yéen it nag yéen ñi nga xam ne dara dara leen ngeen di am benn bàkkaar an taxulu ngir ngeen lekk ci bu ngeen lekkee min bu yootikum ci seen kër bi maanaam borom bi subhanahu wa taala mu ni ñii day arab yi bu njëkkoon comme ni ko alhamdu na kafir waxee da ngay gis dañ doon bañ a bokk ak ku silmaxa lekk lu tax ndax dañ naan kii kat moom gilut ñam yu ak li ci neex ci digg ba kon su ma bokkee moom man mii gis mën na maa lekk neexee ba su boobaa dina am bàkkaar allah xoolal ñooñu fi ñu tolloon ci yëg yi mooy damay bañ a bokk ak seen loxo bi ndax lu tax ma koy bañ ndax maa ngi bañ ma coppal ci digg ndam li loo xam ni moom waroon na ko mën a laal ñàkk ak gisam moo tax gisu ko man saa gisa tax ma jël ko ñu ne kon dootuma bokk ak moom lekk ki feebar ci kadaalika moo tax suñu borom ni déet benn bàkkaar di leen war ah an taakulu ngeen lekk min buyutikum ci seen kër lekk ci kër ñii suñu borom ne dara néew ci bokk ak ñoom lekk it dara néew ci loolu su fekkee ci ne yow dalaa jàppoon ni bàkkaar la ci yow suñu borom ne loolu xaraj amu ci xaraj mooy bàkkaar moo tax borom bi subhanahu wa taala ni an taakulu ngeen lekk min buyutikum moo xam ci seen kër la ah aw buyuti abaikum wala seen kër bàyyi la mën nga faa lekke léegi arab yi amoon nañu aadam nit ki da doon moy di fi jàmbur ak loo ko jege jege jege même mu dégg lekk ki nga bokkal ndey baay boo tegee lekk sax doo ko ñemee laal ndax noonu lañ leen yare woon ñu ne bu dee mbiram lekk de rawatina loo xam ne yow boo ko jëloon moom lekk ko moom bu yëgee ni lekk nga ko lu ca mer lu ca def dara boo ca xamee lool suñu borom bi loolu baax benn bàkkaar bu ci nekk moo tax suñu borom ni an takuloo ngeen lekk min buyutikum ci seen kër aw buyuti aabaayikum wala seen kër baay sa kër baay tamit dem fa lekk dara néew ci xëy na dina la topp nekk wala rus rus ba tax kër jàmbur doo ko bëgg a lekk suñu borom ni déedéet dara néew ci ñii nga xamante ni ay jege naa la la jaay ñoom ñooy yow rawatina suñu borom ni nga nekk seen kër dara néew ci ba tax mu ne aw buyuti aabaikum wala seen kër bàyyi moo xam yaa ngi dëkk ci kër gi moo xam sa yaay daa nekk feneen nga dem fekk ko fa nga lekk këram suñu borom ne loola bu dee da ngaa jàpp ne dara nga ko dara nekk ci aw buyuti ixwaanikum wala seeni kër yi frère comme ni ñu koy waxee ixwaan mooy frère mooy ki nga xam ne moom nga bokkal ndey ak baay wala ki nga bokkal ndey wala ki nga bokkal baay ñoom ñëpp frère lañ leen di bool moom la arab tudde ixwaan aw buyuti axawaatikum wala seen kër yi sœur mooy ki nga bokkal ndey ak baay wala ki nga bokkal ndey ak baay wala ki nga bokkal baay te nekk jigéen te nekk jigéen mooy axawaatikum aw buyuti aamaamin wala seen kër papa bu ndaw am mooy ki bokk ak sa papa kon bokk sa papa bu ndaw lañ koy wax wala bokk sa papa bu ndaw moom mooy ki bokk ak sa papa mooy amaamikum sa kër papa koo xam ni papa la ci yow ndax moo bokk ak sa papa kooka demit nga doon fekk fa lekk am ca aada lekk ko dara néew ci aw bu yoo ci ammaatikum wala seen kër lan ku jàkkaarloo papa bu ndaw
bàyyi sax ak bàjjen bàyyi sax ak bàjjen bàjjen moo jàkkaarloo aw buyuti ammaatikum wala seen kër yaay yu ndaw mooy bàjjen aw buyuti axwaalikum wala seen i kër yi ndijaay aw buyuti xaalaatikum wala seen i kër yi ku jàkkaarloog ndijaay tànta seen kër tànta kon gis na kon ñii ñëpp mooy bàyyi ndaw di bàyyi ndaw ak bàjjen ba nga xam ne moo jàkkaarloog ndaw ndax ñi ño la la la nga bokk ak kee nga bokk ak kii kee di góor kii di jigéen wala boog ndijaay ak soxnaam ndijaay bi ki bokk ak sa la ndijaay mooy ki bokk ak sa sa yaay bu fekkente ne ki jàkkaarloog moom mooy tànta mooy soxnaam kon ñoom ñëpp am ci kenn koo xamante ni boo demoon këram lekk fa dana la jural benn bàkkaar wala ba war gaa mën a complexe ca loolu suñu borom subhanahu wa taala ni aw maa malaktum mafatixahu wala loo xam ni caabi magasin la yim la jox nga di ko tey dëkk la fii nag borom xam-xam yi wuute nañ ci aw maa malaktum mafatixahu ñenn ñi mooy tey jaar waaye prix bi gën a dëgër aw maa malaktum mafatixahu mooy koo xam ne dañ koo jox caabi magasin mu yore mooy nag surga bi ci kër gi nga xam ne caabi magasin moo ko yore léeg-léeg mu am aajo ci suukal si wala yu demee noonu te borom kër gi xam na ne daf ci am aajo te bañ ko loolu mu jël ko dara dem ci alhamdulilah kat mu ne arab yi doon na àgg ci niñ doon defee mooy su fekkee ne dañ laa dénk ab tool wala ñu dénk la caabi magasin yi wala nangam benn mbékk ab suukal boo ko fa soxlaa sax doo ko fa jël buñ ñëwee lu tax ngeen ko jël nii mbir ñi buñ ko jëlee xam nañ ne seddul seen xol yi kon lewuñ ndax yàlla moo ne laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil bu leen lekk seeni alal seen biir cig neen te ku ne xam na ni ñam bokk na ci li gën a réy ci alal allahu akbar comme ñoom yeggoon nañ foofu suñu borom ni déedéet su fekkee wóor na leen ni fii lim la dégg muy caabi maa nga nee léeg-léeg boo soxlaa ci ceeb bi mën nga jël genn wàll libéré ceeb nga sombi ko te moom bu ko yëgoo ko xam ngay du ko bañ léeg-léeg ngay suukar na taat ak kafe jël sa ñetti mètre suukar ñeent te moom du ko bañ suñu borom ni loolu dara nekku ci waaye nag wax ni ñëwee ci buntu boobu mooy lëkkër mooy la ma waxoon ci laay jii ma jeexal wàññi saxat na xëyru la xam nga nangam boo ko defee may nañ la nangam tekkiwul mooy def ko par force bu ngeen fàttali ko ñett li woon naa leen jàmbaar joojee nga xam ni moo di Abdullah ibn Mubarak muy paa boobu tuddul Mubarak ci mag ñi démb ñi ni ñu àggee woon ci ñoŋee ci loo xam ni jege na leen ak lu mu leen jege jege jege jege jege bu nu leen ko may duñ ko jël comme naka benn waay moo ko jëloon muy garde toolam toolam nay mango am ay raisin am banaan am fruit am lépp benn bi borom tool bi am ay garab ni ko daggal ma granat mubaarak ten dagg garanaat yu ñoru tëb yu xaayu tëb yu xaaya yëpp andi buñ dagg rek du baax mu daal di dal ci kawam artale ko ndax moo nekkoon jaatige ni ko yow xanaa da ngaa doon mag mu day ñëw mu fexe ba xàmmee garanaat bu ñor ak bu ñorut mu ni ko man nan laay xàmmee garanaat bu ñor ak bu ñorut te musumaa lekk ci doom bi benn tool benn doom ba yoo xam ne ñor bu ñorut borom tool bi dafa tiit ndax du nit ñi mu daal di woo surga yi nekk ci tool ñëpp mu laaj leen ba ngeen nekkee ci tool bi ba tey ndax mos ngeen a gis mubaarak mu fekk benn doom ñu nekkoon ci tool bi yëpp téere ni mubaarak kenn mosu koo gis mu fekk am doom allahu akbar mos ngeen a gis benn waay bu garde tool lu mat ñaari at ñetti at tool bi di am ay meññeent meññeent ma meññ ba rakk mosoo ci lekk benn doom lu tax loolu la ñu tuddee ay fa wala boog waa mooy ñoŋeel sa diine ba lépp loo xam ni mayuñu la ko saraxuñu la ko leew la doo ko rek xam ngeen fan la mujjee borom tool bi daa dem ca këram seet doom ji jigéen ca toolu ca sëy mu ne ko ku mel ni yow ci am diin laa nuur xaaral may la ko sa ragal yàlla gii nga ragal yàlla mooy canal allahu akbar ca la juree fonkal abdullah ibnu baax déglul gis nga moo tax bàyyi ko ku baax ak am solo ibn al-Mubarak wax ni la an attaqiya dirhaman min subhatin ahabu ilayya min infaqi alfin dërëm boo xam ne daal lëmt ma mooy jëndi ko ko moo ma gënal ma jël junni di ko saraxe fi sabilillah est ce que dégg ngeen wax bu baax dërëm boo xam ne daal am lëmt ma mooy ko ko dama ko lekk moo ma gënal ma jël junni di ko saraxe fi sabilillah lu tax ndax kii bàyyam daa defaru defaraale ko yaayam defaru yóbbaale ko moo tax fexe ba li ngay dundee lew fexe ba li ngay dundal sa njaboot lew fexe ba lu leer doo ko jël doo ko lekk lu lënt doo ko jël doo ko lekk ak am solo yàgg naa yenn baabu wax imam ju mag jooju Sahl ibn Abdillah ibn Turi mu ne man akala al xalaala ataa allah shaa am abaa lekk lu lew moom topp yàlla force bu la neex rek bu la naqare nga ne lu tax mu ne lekk lu lew énergie la buy tax nit ci mën a topp yàlla boo tawal ko ci topp yàlla mooy lekk lu lew da nga mën a topp yàlla maa la ak shadid boo xoolee tey daanaka néew na koo gis muy lekk lu lew gars yi naan fi mu nekk nii moom boo demul ca ca booloo la pënd ba fekk dina ba sa biir kër yàlla rek moo la mën a jàmmal kon suñu borom mu ni aw maa malaktu mafatixahu wala loo xam ne dañ daa dénk ay caabeem te xam nga ni boo ci jëlee lekk kooma du ko bañ yéen ci yàlla mu ni dara newu ci aw sadiqum wala sa kër xarit sa kër xarit lekk sa kër xarit moo xam moo la wax kaay lekk moo xam dañ faa fekk lekk nga ci nga xam ne lii kat boo ko lekkee du wax dara nga lekk ko suñu borom mu ni dara newu ci waxoon naa leen fi bokk na ci asalaatu salih seen dund ragal yàlla mooy ay mbokk jullit dañoo war a nekk benn nekk benn boo xam ni kenn ku ci nekk day yaatal sa sëg sa morom ci say biir kenn dañuy ndongo yi ndax kenn ci yéen ñime ngaa wax dem sa mbokkum jullit nga def nii ca poosam génn ba ñaanu dem jënde ji ko mburu gaay yi ne ko ah loolu de boo ko defee nag gaay yi ñu daal di sa kaw la mu ni kon boo nee sama mbokk yaa ak yi da ngay gàtt mu ni fii ak ñi ne woo jël ci poosam wala moom ñi ne woo la jël ci sa poos dem faji ay soxlaam boo nee ko yaa ak yi boo nee ko yow sama mbokk boo ko dëgg moom it bu nee la sa mbokk boo ko dëgg ñu ne ko lu tax mu ni mbokkoo gi balaa dëgg faw kenn ku nekk am sañ-sañ ba am sañ-sañ ci sa yëf yi morom ñun de loolu dundaguñ ko xaw ma ban at lañ koy dund nag waaye dund da ngay kenn day soxor ci ay mbiram bee peeru soxor boo xam da nga yaakaar ni kii sax du dee moom loo xam ne boo dee woon léegi léegi léegi daal di koy tekki takkal ko keneen loolu jurul soxore boo xam lenn lu ñu subaari sax xanaa tiyaa ba nga xam da koy yóbbaale moo lay jënd kon aw sadiqikum wala sa kër xarit sun borom ni laysa alaykum junaaxun du ngeen am benn bàkkaar an takkulu jamian ngeen lekk nekk mbooloo aw assaatan wala nga lekk yow kat yi allahu akbar xoolal mbokk yi gis nga jikko yu baax yaa ngi dellu si ba léegi te lii suñu borom ni benn bàkkaar nekkul ci ngeen lekk nekk mbooloo wala nga lekk yow kese saxaaba yi ñoom dañoo rusoon lekk yow kese rus rus lekk yow kese lu may dox di lekk man kese mel ni ab dox te ma ma wuti ku ma lekk la ñun nag sama gars yi moom dañuy làq ñuy lekk ndax dañ ko la ñaan waaye xoolal yow saxaaba yi da nga doon rus lekk yow kese imam Qatada mu ni kaana haada alxay min bani kinaana yara ahadukum anna maxzaatan alayhi an yakula waxda fi ljaahiliya mu ni même ci ceddo ga tax am na giir ñu ñu xam ñoo xam ni ñoomam dañoo jàppoon ni gàcce la nga am ab lekk nga lekk ko yow tamit damay wóor ci la hawla wala quwata illa billah nga am ab lekk nga lekk ko yow kenn damay wóor ci ñu ni yéefar yi yéefar yi jaahiliya yi ceddo yi dañoo jàppoon ni lu gàcce la kon yow jullit bi nag mu ne xatta inna rajula la yasuuqu duula alxabl wa huwa jaaiun xatta yajida man yuaakilahu aw man yusaaribahu fa anzala allahu taala laysa alaykum junaaxun an taakulu jamian aw ashaata mu ne léegi da nga yor sa ndog ci mburu wala sa mool su ndaw xam ne tuuti ndax day ca nekk wala mool su ndaw nga xam ne tuuti pondee ca nekk nee dañ koy ngam ngir li pinc mi pour seen koo taseel ngir nga bokk ak moom lekk parce que dañoo defoon gàcce lekk yow kese subhanallah su fekkente ni ñi nga xam ne ñoom ak jullit nekk gul woon ci ñoom sax yeggoon nañ bii kon jullit bi nga xam ne moom bu amee lekk day làmbatu pour lekk ko ndax bañ ko ko ñaan kooku moom lu ñu ko war a wax waaye moo ne nekk yow kese dara ñëw ci doon nag lekk ak mbooloo moo gën ndax ca la barke nekk moo tax rot na ci musnad ahmad wa kadalika suma jumul sunan ibni maaja am na benn saxaaba moo xam daa ñëw ci yonente bi ni ko ñun day dama xamul tey daa ñu jàpp dama xamul lu xew suñu kër ñun luñ sóor duñ suur déglu leen bu baax mu ne ko ñun dama yaakaar ne dama tey daa ñu jàpp wala lu xew lu ñu sóor lu mu mën ci toll duñ suur yonente bi ne ko wala allakum taakuluuna astaata mu ni amaan na boo demee yéen da ngeen di lekk kenn ku nekk di beru comme affaire tubaab yooyu ku dem fourchette ak palaat nga dem dee kee dem subhanallah léegi da nga dem ba laax ngeen de yee yooyu yëpp xaw ma xaw ma xaw ma civili civilisé leen ci jublu xaw ma kes ki doo xam waaye déedéet déedéet bokk lekk moo barke yéen yàlla ni amaan na yéen bu ngeen dee lekk da ngeen di beru kii beru fee kee beru fee ku nekk tibb sa bool waa ji ni waaw yéen yàlla bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam ijtamiu ala taamikum bu ngeen yëkkatee bool taaj leen ko yéen ñëpp ngeen bokk ko wadkuru smallah ngeen wax bismillah mu ne bu yubaarik lakum fii mu ne bu ngeen koy def yàlla di ko barkeel waa ji nee na ñaari fan lañ ko def rek liñ daan sóor sax lay def allahu akbar xool dañ daan yàq séddale dun suur lu tax yakkalal kii fii yakkalal kee yakkalal fee kenn ku ci nekk di jaay ak tubaabe ab yéebéne sax laay wax waaye yéen yàlla bi digal ko ni ko na ngeen bokk ngeen bokk benn bool sukk su ngeen sukkee ngeen wax bismillah yàlla dina leen barkeel yaakaar naa yéen a ngi fàttalikoog man xadis ab jaabir moom leen fi nettali woon jaabir ibn abdullah nee na keroog xandax benn saxaaba daa defar ab lekk mi ngi mel ni benn waay bu gis yonent bi sonn rek sallallahu alayhi wa sallam mu dem jël fee tuuti dugub rek daal di koy gaaw waru ko defar fonde daal di ñëw fekk yonent sa sallam mu kabas ko ndànk ni ko yaa rasulallah yow kat xam naa ne yëf yi métti na kaan dem kër ga sama soxna am na lu mu defar bi ñëw lekk ndekete mbool ci mboolu su ndaw a ndaw a ndaw su tuuti xoolal wallaay lii mbokk yi day tax nga gën a xam maanaam yàlla subhanahu wa taala ni mu li mu defaloon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci baax te lii moo demee ci kutubu shamaa'il yi lu mel ni kitaabu shamaa'il imam Bayhaqi ak yeneen bu mel ni imam Jamil Zaynun ak yu demee noonu di nga fekk xadis bii ma lay wax yonente bi ni yaa ahlal xandaqoo ajibu jaabir sallallahu alayka ya rasulullah mu ni yéen waa xandax bi wuy di leen jaabir nee na daa defar luy lekk jaabir nee na sama fit waa ngi tiit maa ngi tux nan tuxit tuxit ndax ak mbool su ndaw soo xam ne yéen bi bëgg a woon téeméer ñu tëg nangam buñ dikkee lu ñuy lekk te rus naa wax yonent bi tourneel gaa yi ndax yëf yi daa tuuti yonent bi xamul la xew mu ne yaa alal xandaqoo gaa yi ñëw jaabir nee na maag soxna si ci waañ bi maag soxna si ci waañ bi mënumaa ka dafa génn ndax mbool su ndaw sii rus naa kaa génne ci téeméeri nit yi waaye undur ila adabi sahaba du ñëw du ñëw ni yonent bi gaa yi dañ ko def du ñëw ni ko ndax daa tuuti waaye ñoom yàgg nañoo xam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla di ko defal baraka baraka beneen gi nii bu niroog moom nii la yonent bi def saxaabi bi amul lu mu jàppoo yonent bi nii baaraam bi di xel ndox sallallahu alayhi wa sallam nii la def baaraam bi di xel ndox baaraam bi di xel ndox ñu taaj ba seeni magaan magaan fees saxaaba ya jàpp ca naan ca te loolu wér la comme saxaaba yi amoon nañ ñu mel noona ak di jël ay xeer di ko teg ci loxo muy wax di sàbbaal yàlla jaabir muy ñun daal nañ ko génne rek lu yàlla def muy doon jaabir nee na ñu génne mboot nee na biñ ko génne yeneen bi ni leen raxasu leen di ngeen wax bismillah jaabir nee na lu mat nangami téeméer ci ay nit lekk nañ ci karab yi lekk daa des nañu def allahu akbar loolu dañuy fàttali ba léegi xadiitu ummu mahamad gis ngeen yonent ba muy gàddaay sallallahu alayhi wa sallam te lii yu bare bare bare bare la ci siira yonent yàlla bi daa romb benn gis moom Aboubacar ndaw bu ñuy wax Ummu Ma'bad fekk jëkkër ji daa génn yonent bi daa ne Ummu Ma'bad man de damaa bëgg am soobo Ummu Ma'bad ni ko gàtt yëpp sàmmi nañ te sama borom kër néewu fi yonent bi seen am xar moo xam ni mu jigéen ma nga tëdd yonent bi joxe na xar ba ni ko waa xar may ma séen mu tëdd nag bu mu maax ba daal di koy ree ni ko te xam nga kii lu ko tere dem ca sàmmi baax mu ne ko dee mu ne ko daal looxa looxa loox ba mën ta dox ku loox ba mën ta dox kooku dina am soo lii mu ne ko daal loox ba mën ta dox wala ñu sàmmi ay borom bàyyi ko umu maax nag xamuñ ni kii mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko est-ce que may nga ma digal ma rax ko um maama ni si si si si yow xanaa yow déggoo li may wax dama ne kii daa woo ba mënta jug ku mënta jug kay xam nga ni amulum soo yéen bi ni ko ndigal rek laa soxla may ma ndigal rek ma rab um maama ni ko saa waaj xar maa ngoog yéen bi ni Aboubacar alma këll radiyallahu anka ya Aboubacar ndeysaan bi muy dem këll yaag sotti yaag yépp la préparé ndax bëggul yéen bi ñàkk dara ci yoon daa fekk ay sotti dugal ci saagam indi ay nu mu tëddati kook teg ci xaw da ci giléem indaale këll teg ca indaale kasala bu ñu jàppoo teg ca ndax ba yéenewul yonent bi laaj dara ci hijra bi mu ñàkk wallahi moo tax Abubakar Siddiq ah min as-saabiqiina al-awwaliina ah waaye daraja sax gën naa kawe noonu ndax alalam ci ko moo fekkee wut lislaam ci lépp da ko finance yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ummu Ma'bad nee na damaa seen yonent bi laal tax tax xar mi rek affaire bi wéy ñu bees jël jël jël yonent bi di ras Ummu Ma'bad jombi nag xar mu loxo ba mënta jug ñu koy rat ñoom nag dañoo gaaw ci kii day jabar xam nga ñoom arab yi lu gis lu mel noonu rek xar baax na ñoom jabar lañ koy jàppee mu gis yonent bi rat tarat tarat tarat tarat ba doyoo ndeysaan ca mbaax ga au lieu que mu yëkkati naan mu yëkkati ni Babacar am naa Abubakar ni ko xalaatuma laa ci kanam yaa rasulallah mu ne ko déet naanal may raxas mu ne ko mukk naanal ma pare yow ndeysaan yonent bi insisté insisté Abubakar ni ko déet naanal yonent bi naan ba mànd sama joolaa bi nee na kenn du wax mànd kenn du wax naan ba mànd ndax mànd baaxul da ngaa xam ne xoolal yi waxee de wax dëgg yàlla kenn wax naan bu tuur de boobu kon moom naan ba doyal jox Abubakar mu naan umu maa rek yéen bi rax ko leget gi ba mu fees boo delloo ci kutubu samaa yi ñi gën a mën a décrire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam umu Mahbad cala ñi lay wax ak samaa yi ñii wax nan la yonent bi meloon ah ñi naan la bët yi dafa ubbeeku woon allahu akbar te wallahi loolu bokk ci mandargay taar la bokk moo xam góor la moo xam jigéen bët yoo xebu xam ne xeb boo tamit baa ci jéego yaatu lool per ba ni tàng rëy lool te du génnut dégg li ma la wax per bu rëyee rek bu génnee rafet dootul amati per day rëy waaye du génnut per bu rëyee xeb ba ni paat rafet am na bu génnee rek per a ragal kawar yi ëqrib jëfi nit tàjj leer nañ ba boo naan nii sax da nga naan ndax sama baaraam yi di moom lay cëj cëjaloo bopp bi day tuutiwut karaw gi danaan daanu ba sax ci mbagg yi léeg-léeg mu jëm suñ ñu ubbeeku sàkkara yàlla boo xam ne toog jàkkaarloo moom jar na fay un million par jour ndax buy wax air da ciy génn mel ni leer sallallahu alayhi wa sallam gone bu mu taseel fab la jàll boo yegsee xam ni Muhammad fab fab na gone gi ndax bëggoon par foofa pour laal na xaw dara sallallahu alayhi wa sallam umu maabad boo demee ci kutubu sama yi ñii melal nan la yonent bi meloon da ngay gis melokaan wu yéene wu kéemaane wu melal yonent bi xam nga lu ko waral bi yonent bi jafee jëf jëm jaf nag dafa jumbi léegi nag mu commencé ca kaw ba ci suuf di xool yonent bi di ko xool ci kaw ba ci suuf moo tax boo demee ci téere yi nga xam dañuy wax ci melokaanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay fekk xadis ak ummu maabad bokk ci xadis yi gën a gudd ngeen dem gën a leer ci melokaanu yonente bi gën a bari baati lu nga nag tamit teg ci xadis bi dellu leen ci boo demee ci téere yi yéen xadis bi ci baat xadis yi gën a bari lu nga la bokk ndax baat yu garaaw yu xóot lay utiliser ci melal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon li ma bëgg a wax foofu mooy bokk di lekk day indi baraka ci ñam bokk di lekk day indi baraka ci ñam plus wax bismillah wa rasul ma ni laysa alaykum junaaxum du ngeen am benn bàkkaar an taakulu jamian ngeen lekk yéen ñëpp aw astaatan wala boog bu fekkee ni da ngeen daa aajoo nga lekk yow kese yow kese yaa fa lekk dëgg la loolu nag dund waaye boo ko defee doo ci am benn bàkkaar comme yi weesu sunu borom ba léegi ci jàngale suuratul mulk fa idaa daxaltum su ngeen duggee buyuutan ak kër buyuutan ay kër fa sallimu na ngeen nuyu ala anfusikum ci seen bopp taxiyatan nuyu boo xam ni mubaarak min indillahi dafa bàyyi ko ci yàlla mubaarakatan barke lool tayibatan teey lool muy lan asalaamaaleykum wa rahmatullah laay ji nag am na ak taxaw seetlu jàngoon nañu laa tadxulu buyutan xayra buyutikum xatta tastadisu mbokk yi bàyyi leen xel tomb bi may bëgg a wax ndax taal baa ngi bëgg a jeex gis nga mbirum nuyoo mbirum nuyoo l'islam da ci da ci da ci insister trop trop gisoon ngeen bul dugg kër jàmbur lu dul da ngaa nuyoo da ngaa yëglu gisoon nga ki nga xam ni jàmbur la ci kër gi faw muy nuyoo doo ko dugg gisoon nga surga bi ne ci biir kër gi danaa yëpp ci nuyoo la jëm rek may nañ heure bu ne mu dugg ko génn ba mu des ñetti heure gone gi mayoon muy dugg heure bu ne mu xasee mesure bu mu dugg ci heure bu ne ndax yëpp lu beneen aaya ñëwaat na tey bul dugg ci benn kër lu dul dangaa wax da nga nuyoo nuyoo moo xam ne min indillah mubaarakatan tayiba bi maanaam bala ngaa dugg génn kër faw nga wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu soo nee assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu déggoo dara nooy def nga waxaat ko beneen yoon après déggoo nga waxaat ko beneen yoon ah boo ko waxee ñetti yoon nag après doo dugg lu tax ngay def ah foofa la sunna yem salaamaaleykum wa rahmatullah ñetti yoon wuyu wuñ la demal sa yoon loolu mooy xadisu abi saad al xudri waxoon naa leen ko weesoon sonnerie nag am na téléphone am na yooyu ay moyen yi la gën a jëfandikoo dara nekk waaye su fekkente ni ku mel ni al imam an-Nawawi ne su fekkente ni wóor na la ni wóor na la ni dégg li tee ñu dégg la mooy soriwaayu fañ nekk wala coow la wala nangam lenn mu ni lenn ci borom xam-xam yi ni su fekkee am na moyen boo jëfandikoo bañ dégg la mën nga koo def am na ñuy déer da ngay dellu dem waaye léegi nag boo ñëwee ci kër goo xam ni fekkoo fa kenn nag te nga war a dugg nooy def hmm? boo dikkee ci kër goo xam ni kenn nekku fa koy nuyu bi nooy def da ngay dellu boo ko amee soxla yaa yore caabi ji la ñooy naa aywa loolu moo wér bu fekkee yaa xam sa caabi magasin la nga xam ne boo tijjee doo fekk kenn sëb néeg la boo tijjee doo fekk kenn rot na ci sunna nga wax assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin jàmm yàlla yàlla na nekk ci ñun nekk ci jaami yàlla yu baax yi kenn ci magi salaf yi mu ni rot na ni sax boo ko waxee malaaka yi dañ lay delloo lu yóbbi Saïd ibn Jubayr ak Xasan al Basri ak Qataada ak Zuhri mu ni fal yusallim baadukum ala baadi fa sallimu ala anfusikum mooy na ngeen nuyu seen bopp moo xam ne nu ko firee kon benn firi nii ma la wax wér na benn mooy fa sallimu ala anfusikum ay fa sallimu ala ixwanikum nuyu sa mbokk yi ngi fekk bu fekkee ay nit nga ko fekk xoolal sa bopp wala talmizu anfusakum bul xas sa bopp na lañ di xasee boppam dañ ne sa mbokkum jullit mooy yow yaay moom boo ko xasee xas nga sa bopp gis nga kon noonu la ko suñu borom waxee wala talmizu anfusakum kon mu ne fa sallimu ala anfusikum mooy nuyul sa bopp sa bopp mooy sa bokkum julit waaye ibnu Jurayj mu ni axbarani abu zubayr mu ni sami'tu jabir ibn abdillah yaqul ida daxalta ala ahlika fa sallim alayhim taxiyatan min indi allah mubarakatan tayiba qala ma raaytuhu illa yujibu qala ibnu Jurayj axbarani ziyad an ibn tawus annahu kaana yaqulu ida daxala ahadukum baytahu falyusallim soo duggee sa kër da ngaa war a nuyoo bu fekkee nuyoo la nag ña fa nekk ñu fay la su fekkee da ngaa dugg koo xam ni sa kër la wala feneen la te kenn newu fa nga doog a jëfe li ma la wax sànqam imaam Mujaahid mu ni ida daxalta almasjida fa qul assalaamu ala rasulillah wa ida daxalta ala ahlika fa sallim alayhim وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إمام مجاهد ni boo duggee ci jàkk ji da ngay wax assalaamu ala rasulillah maa ngi nuyu jàmm yàlla yàlla nekk ci kaw yonent bi maa ngi nuyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag day ànd ak dikr ya ngay dikk ci dugg jàkk mu ni soo duggee sa biir kër na nga nuyoo assalaamu aleykum wa rahmatullah nee na su fekkee ngay nag kenn nekku fa da ngay wax assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin yàlla jaam yàlla nekk ci nekk ci jaam yàlla yiw yi fa innahu kaana yu'maru bi dalik wa haddathana anna al malaika taruddu alayhi mu ni daanañ digle loolu mag ñi daanañ digle loolu di ko def tey nag sax rot na ni malaaka yi dañ lay tontu soo waxee loolu sunu borom la kadalika nii ngeen gisee li ram ci suuru nuur lépp ci ay njàngale ba bii ci mujj tey yubayinu allahu lakum ni la yàlla di faram-fàccee al ayaata aaya yi laallakum amaan na bu ngeen fi jugee laallakum amaan na bu ngeen fi jugee gis njaalo ak ni mu bonee amaan na bu ngeen fi jugee gis tuumaal gor su deful dara ni mu garaawee amaan na bu ngeen fi jugee gis ni góoru jàmbur ak jigéenu jàmbur sépp ñuy gaf bay defkante yu xarita ka ay miinantee ka xam xutaayante mel ni ñu amul fuñ jëm kadalik nii ngeen gis ñu faram-fàccee ci saar bi wane ni góor ñi dañuy téye seeni bët di xool la leen seen borom xoolloo wa kadalika jigéen ñi kadalika nii ngeen gisee ci saar bi li ci rot ciy njàngale lépp kadalika nii ngeen gis suñu borom su àddala diglee ko faram-fàccee ko ay njàngale ci saar bi te ñu gisoon yubayinu allahu lakum ne la yàlla ay faram-fàccee al ayat lakum ñeel leen al ayat aaya yi lakum ñeel leen laallakum amaan na bu ngeen fi jugee taaqilu la di ngeen am xel tuuti allahu akbar laallakum taaqilu gis nga bu ñu xel loo rek wala dañuy xam ne li yàlla doon wax lépp suñuy intérêt rek la ñun rek la yàlla doon tàmbal suñu waxoon naa la sànq li lay arrangé mu ni na ñëw li lay déranger mu ni na randu loolu say arrangement rek la kon laallakum taaqiluun mooy di ngeen tàmbalee xellu nga xam ne ah nekkati lislaam kat nekkati lislaam kat amul lu yemam nekkati lislaam kat day sàmmal jigéen honneur am nekkati lislaam kat daa bëgg jigéen ñu ñoŋeel ko teg ko ca kaw def ko kat durratin maxnuuna comme or gis nga de muur yaram weeg gàttal tànk beeg bana karab karab yi booy doxal booy wax di noot noojal sa baat mel ni kuy waaj a feebar ak yooyu yëpp mu di la ko tere lu tax daf laa bëgg a def kat durratil maxnuuna oui mooy koo xam ni xool la suñu àmbale moo tax boo dee xool taar bi ñëpp la arrangé waaye wallahi dafa gën a arrangé jullit yi jigéen lu tax mooy yu bare bare bare ci yoo xam ne day tax ñu respecté leen te waxoon naa leen ko ci bind ba leweesu kenn talaay jigéen ji nu mu sàmmoon teeg njàngalee l'islam yi ne ci saar bii ak ca suratul ahzab ak ca suratul nisa ak yeneen yi firin ci ci alquran wallahi nit ñi sax dañ lay ormaal dañ lay respecté koo xam ne dafa soxor lool ci aw yaramam waxoon naa leen jigéen jullit bu jigéen daa war a soxor ci aw yaramam fii ci soxor soxor li ñu tuddee soxor xaw ma soxor dana baax xaw ma du baax waaye bu dee fii moom baax na soxor lool ci saw yaram lenn fu tolloog fa ñuy sànq montor sax du ma nangu mu feeñ ba góoru jàmbur di ko gis pourquoi ma di ko gis gis nga wax ju gàtt te jot waxi fulla bu may wax waxi fulla laay wax waaye di waja di jeeg wax wax joo xam ni amul bopp amul génn amul fulla ñi la war a respecté sax duñ la respecté suñu borom ni fala taxdaana bil qawl jël bu jigéen buy wax bu muy nekk di noot noojal baatam di yembar yembarlu déedéet fa yatba alladi fi qalbihi marad bu ko defee góor gi nga xam daa feebar nga commencé muy kanam di jëm ci yow suñu borom ni booy wax wa qul na qawlan maarufan waxal wax bu dëgër këcc ñoom tox wax joo xam ne boo paree kenn du la laaj li nga wax lan la day leer gis nga booy dox ci mbedd bi yent yàlla bi nee na yéen jigéen ñi amuleen àpp di jaar ci diggu mbedd nga xam ne fu waay toog da lay séen dee leen jaar ci pegg mbedd yi saxaabiyaat yi ña fekkoon njàngale yi dañ daan jaar ci pegg mbedd yi ba sakket yi di lonk seen muuraay yi radiyallahu anhum gis nga jële bu jigéen boo génnee ñu ni sa jaltaw xep amana léegi nga xool góoru jàmbur bët boo ko war a xool wala nga génn gis yi di jàmbur su ko defee njëbët yu bari commencé laa dikkal booy dox nag sunu borom yi na nga dox ndànk dox bu teey jigéen joo xam ne buy dox karab karab karab comme fasu ko suur rek kooku góor gu baax sax du ko bëgg góor gu baax sax du ko bëgg jigéen daa war a dal buy dox dox bu teey góor moom moomu dox bu teey bu yambare boobu kon Omar ibn Xattaab daa fekkoon gaa yoo xam ne dañuy dox ndeysaan di yokko ko ki yokko ko ki Omar dem génn karawaas gi benn seen ci gannaaw kàccëri leen ak kàccëri ba seen yaram yi tànk waaye dox leen waaye ñu doxam góor góor buy dox day këdd di tànkam gis nga kon loolu doxam jigéen la dox bu dal bu teey nga xam ne kenn du dégg yaa ngi moom waaye da ngay gis jigéen ju rafet rafet boo déggee muy ñëw ca ferek ba sax da ngay xam ni di way ñëw karab karab karab karab karab yoo xam ni déedéet jigéen du mel noonu kon nag li mu bëgg a wax mooy borom bi subhanahu wa taala tënk na ci saar bi loo xam ni bu nu ko jëfee yàlla danañu defal tawfiqi àddina ju àllaaxira waaye rawatina jullit bu jigéen sunu borom ni kadalika ni ki nii nag yubayinu llahu lakum al ayat na la yàlla y firinkee aaya yi laallakum amal na bu ngeen fi jógee taatalu di ngeen xellu te xam ne fi leen l'islam jaarloo rekk leen arrange kon dañuy taxawal ni noonu li ci des insha allah ci saa bu subaa ñu jéem koo yeggale di ñaan sunu borom boole ñu defal tawfiq defal leen ko wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa alihi